maaleykum mbooloo mi ma dellu si di nuyoo kenn ku ne ci turam ak ci santam li may tàmbale mooy sama vidéo bi ma def démb dafa am ñu ma ci interpellé li ñu naan ñu ma ci woo daal ne ma ah, yow de moo di li ngay wax sëriñ si danga ne sëriñ si déedéet xalaatuma ko loolu mooy généraliser ñëpp a loolu moom mësuma koo gëm

xalaatuma ne sëriñ sépp sëriñ samay wax ah pourtant leeral naa ko parce que dafa am benn journal Dakar Time mu génn le 22 septembre ci xëtam mu njëkk ne après sa après sa tournée dans les familles religieuses les marabouts s'engagent maanaam gannaaw bi mu demee nemmeeku sëriñ si moom Amadou Ba sëriñ si dogu nañu ànd ak moom noonu la ko waxee. ma ni loolu day neexul a weddi parce que fan yi rek am na lu ñu dégg ci sëriñ si kenn kii ne dogul naa la yooyu nekk président 2024 gannaaw gi keneen wax na ko keneen kii waxuma sax ànd naa ak moom waaye dafa dafa xas waa Pastef gannaaw gi gis nañ sax ñuy jooy jooy ci kanam Macky la ak Amadou Ba donc man bu may wax

xalaatuma sëriñ si dama ne lenn ci sëriñ si bokk ñi nga xam ne dégg nañ leen gis nañ leen waaw ñoo ma ñooñoo ma tax di wax ñi jooy ci kanam Amadou Ba ak Macky Sall dogal ne mooy nekk président 2024 et cetera et cetera bay dem di digal xale yi bu bis baa nañu teel a wote ji wote ji Macky Sall man de ñooñoo ma tax di wax te nag am nañ ci sañ-sañ seen sañ-sañ la bu leen neexee ñu jooy ci kanam Macky Sall bu leen neexee ñu dogal ne mooy nekk président de la bu leen neexee ñu woote bu nu àggee ci bis ba seen taalibe yëpp dégg nga maam dem woteel Macky am nañ ci sañ-sañ waaye ma it am naa sañ-sañ ci loolu am ci xalaat parce que dama jàpp ne ñi xam Macky Sall ci la bokk parce que maa ngi koy topp ba ma koy topp ak léegi mat na ñaar fukki at ba ko ab la dàqatut dàqagul ba neug ni waaw def na juróom-ñetti at ci xolu nguur gi moo lay wadd ak fukki at ak ñaar yi muy ñeen fukk yooyu yëpp nag dama ko dama ko bàyyi woon xel am na lu ma xam tam ci amadou ba am na lu ma xam ci amadou ba keneen mën naa ñaan mu nekk président keneen mën naa dogal ne dana nekk président waaye man de mi xam tuuti ci amadou ba xam lu bari ci makisal Yalla bunu yalla tek bobu not yalla bunu yalla tek bobu not ñu fal Amadou Ba mu wéyal li Macky Sall doon doxale parce que loolu lañ wax yalla nanu yalla musel ci loolu parce que loolu natt bu metti lay doon bu ñewé day wéyal doxalinu Macky Sall te doxalinu Macky Sall fukki at ak ñaar yi ku ku xam xamé te te ñëmé dëgg da nga xamni doxalin bu ñaaw a ñaaw la fi doxal ci fukki at ak ñaar ñu ngi naan nag bilan am na lu mu fi def waaye bilan bi dana ci dellu si am na lu mu ci def nit ñi dañ dul taxaw ci li fi def fu mu ko defee na mu ko defee ndax noon la loolal mu defar la mu jar loolu na ko nit ñi ci nit ñi taxaw donc man day di ma xam ci ñoom man day fu ma toll maag ñant dinaa ci liggéey yàlla bu Amadou Ba nekk président de la République du Sénégal parce que bu boobaa li nu dund ci Abdoulaye Wade fukki at ak ñaar dund ko ci Macky Sall fukki at ak ñaar danañ ko dund ak Amadou Ba wala nu dund ci nu dund ci dund ci lu ko raw donc ñii sañ nañ ko sañ nañ ko ñu ngi ànd ak ñi da ngay jooy ci kanam da koy dogul bu boobaa fàtte nañu ku mel ni Ousmane Sonko jéemuñu dara pour mu génn ci lim ne te ñëpp xam nañ ci lim ne am na sax ay jamono ñu naan. sunu kilifa diine yi war nañu wax ci mbir mi mag ki euh Ousmane Sonko booba jàpp mu ne loolu man naa am du taxul kilifa diine yi ñu may wax parce que même buñ jógee wax te sax man naa am am ci wax dañ ko ji si siiwalul rek man naa am am nañu ci wax dama ne même buñ ci waxoon ñoom ñëpp jàpp mu ne Macky Sall dana bay Ousmane Sonko dama ne kilifay diine bu ñu ci waxoon jàpp ma ne Macky sàll dana bàyyi Ousmane sonk parce que moom jàpp na ni bu ko bàyyee mu nekk candidat te bu nekkee candidat day dal di nekk président di amul benn werante te bu nekkee président ña ngay ragal mu gëstu seen gannaaw te wax nañ dëgg ku gëstu seen gannaaw rek mu ay ay dal leen amul benn werante donc tànn nañ tànn nañ ku leen neex ñoom yenn sëriñ si lenn ci ñoom. fàtte Ousmane Sonko seen xel sax demul ci moom euh, jar na nag Ousmane Sonko mii kat dëgg dëgg dëgg jar na di fàttali Sénégal yi kan mooy Ousmane sonk ak Ousmane Sonko lii ñu ko teg ndax yayoon na ko Ousmane Sonko ni ko yàlla bindee ndax lii ñu ko teg yeyoo na ko Ousmane Sonko ku yàlla jubal la waaw lu leer la dafa dafa ko wone ku yàlla jubal ku doylu la ku xam diineem te fonk ko la. ku bëggum réewam ku bëggum réewam lii ma wax kenn mënu ci teggi dara ku yàlla jubal la ku doylu la ku xam diineem te fonk ko la ku bëggum réewal réewam la amul benn werante def na fukki at ak juróom ci impo fukki at ak juróom loolu na ko nit ñi wax dugal ay milliards ci keesu nguur gi ci liggéeyam dugal ay milliards ci keesu nguur gi ba mu ko ciy dugal am na ñeneen ñu koy saax saaxee di ko lekk dama ni fukki at juróom muy dugali milliard ci keesu nguur gi laalu cëb dërëb kenn weddiwu ko ba mu cee dugal milliard rek keneen ñeneen a ngay lekk milliards ya waaw àll kan dane àll kan doyen àll kan inspecteur des impôts demoon la woon moom itam nee na impôt service impo dexu xaalis la ma ni nee na dexu xaalis la dex googu nag Ousmane Sonko da ca daan def ndox bis bu di ko yokk ñeneen ñi di naan ba seen koll fees sangu ba tooy xib tànk yóbbu seen kër Ousmane Sonko di ca def seen ndox te mu si daan naan genn wàllu kaas loolu quand même na ko nit ñi xam ay fukki ak juróom muy dugal ci keesu nguur gi xaalis ñeneen di ko sàcc li ko gën a wanewaat nit ñi dafa créer dafa teg parti politique moo ñi mu xam ngeen leen dañoo teg parti politique mu tàmbali di liggéey la tax ñu teg parti politique bi di lu doxalin yi nga xam ni xew na ci Sénégal détournement de deniers publics ñu dénkalal nga aakimoo ko corruption ger ak yu sew sewaan yooyu yëpp liy xew ci sunu réew mi ni ñu gérer sunu alal ji mu di ko dénoncer. dénoncé na liñ nan euh exonération fiscale nga wara fay par exemple juróomi téeméeri junni euh, waaw 500 wala rek nga wara tay fay 100 millions de francs téeméeri millions wala nga wara fay 200 millions wala nga wara fay milliards wala nga wara fay wala nga wara fay nga am ko xam ki kii ma nga ca service des impôts et domaines wala ministère de l'économie et des finances sa am na fu ngeen jaar ñu exonérer la impôt maanaam la nga waroon a fay doo ko fay te bala ñu laa exonéré dafa am fu ñu ko war a teg waaye loola exonération yii Ousmane Sonko daan wax di ca duur baaraam teguwul ci yoon loola moom neexu leen woon assemblée nationale nii muy doxee loolu it tegoon na ca baaraam won nit ñi na muy doxe te wax na dëgg ba Abdoulaye Wade ñëwee léegi muy ñeent maanaam ñaar fukki at ak ñeent assemblée nationale at mu jot joxe budget nangami milliards kenn musu leen a audité kenn mësu leen a seet te Cour des comptes dafa leen a war a seet ka nekkoon questeur nga xam ne ñu yaay yor budget bi assemblée nationale mi ngi fii tey ci wàllu wàllu Sénégal waaw ki fa ne léegi 2012 ba nëgëni ñëpp xam ko ma nga kenn mësu ko seet audité ko wala wala moom laa tuddee un questeur inamovible questeur boo xam ne questeur boo xam ne. fa nga nekk fa ngay fekk rek kenn ñëmu laa fekk ne la yow mi nangam noonu la yooyu yooyu la Ousmane Sonko daan dénoncé doxalin ñaaw yi càcc gi wuruj yi ex te loola booba mi ngi ci mi ngi ci li ko war dana ni ko gën a leeral léegi dafa créé parti politique am di laaj réew mi am na droit xam réew mi ni muy doxale ni ñuy dox ni muy doxee bu bu bonee mu wax ko wax koo nit ñi noonu dañ ñu daal di gis ni ah kii kat il est dangereux kii kat nañ ci wax buñ ko bàyyee nii mare de Italie ñu daal di jël xam ngeen ko ko gën a bañ ca waan assemblée nationale moo njëkk a loolu ñu jël décret révoqué ko dàq ko jël décret révoqué ko ko dàq ko. 15 ans ci inspecteur des impôts ak nii mu ko defee ak ñeneen ñi ngeen xam liñ nekk ñu tànn Ousmane Sonko Sonko dàq ko. dama ne décret ba ba ko ba ko dàq loolu man dama koy wax décret illégal la dafa violer loi dafa violer loi yoon am na yoon woo xam ne décret boobu da koo violer man pour man jàpp naa décret bu nekkoon ci réew moo xam ne justice moom moom boppam décret bi bu ñu ko attaqué dañ koy annulé li tax ma wax ko dafa am Ousmane Sonko liggéeyam dafa am fu mu ko teg dafa am ay yoon yoo xam ne yi ca ca bitim réew ca Nations Unies fa xeet yépp dale ay yoon lañ fay jël ay yoon yoo xam ni Union africaine dana ko jël yoon yoo xam ne liñ naan CEDEAO dana ko jël loolu lañ tuddee convention des Nations Unies contre la corruption Afrique mu nekk fi protocole Union africaine nekk protocole aussi ci CEDEAO alors yooyu yoon dañuy wane ne convention des nations unies contre la corruption pour xeex ger ak yeneen juñ jaaji convention yu te féetanu kaw dañuy wane ne réew yépp nit ñi dañoo war a informer seeni population seeni population dañoo war a xam bokk ci xeex ger bi population yi dañ leen war a leeral dañoo war a xam wallay lay loolu la convention yi wax te Sénégal da koo dëggal ci benn loi parce que l'Union monétaire ouest africaine nous avons un code de transparence ñom itam pour dëggal convention yi mo wax code de transparence pour lo xamni dañu dañoo ne pour un wu leer ni la ñu fab code de transparence ba jox ko réew yi ci bokk yépp Sénégal Mali Burkina euh, etc. cetera euh, Guinée Guinée Guinée Bissau euh, ak yeneen yi ci des Côte d'Ivoire ak nous jox leen ko code de transparence le gouvernement bi loi mi président de la république loi 27 décembre 2012 mu loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques loi portant loi portant euh, code de transparence dans la gestion des finances publiques. Loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Loi loi ba dafa sénégalais attention surtout ba mu à ci information du citoyen Et taï, état yi informé informer une situation À a de fi ak nañ citoyen fifteen yëmuñu foofa loi bi ne képp ku nekk ci service boo xam ne ña nga fay doxal na ko sudul noona ña ngay saax-saaxe alal ji boo ci noppee yoon day dal sa kaw waxuma ko loi baa ko wax waaye bu fekkente ni bii dénoncé nga leen dem fa nga leen a war a dénoncé nga ne fa ah fee ma ne kat ña ngay saax-saaxe sunu alal ji ñu ñëw saytu loolee nga wax fekk muy dëgg fekk na luubal nañ fa lu ma deux milliards par exemple ma joxe exemple Si ñu demee deux milliards de dafa am pourcentage bu la jox la ndax li nga jël yu ñaaw yi nga donc convention des nations unies nous la wax protocole de la CDO de l'union africaine loolu la ñu wax loi loi portant code de euh, transparence dans la gestion des finances loolu la wax Ousmane Sonko def ndagam dañ boo waxee dañ laa war a neexal waaw Ousmane Sonko lii mu doon wax lan la ci lan lañ sukk sukkandiku ba jël décret dàq ko droit de réserve droit de réserve boo jëlee convention des nations unies bii ak protocole CEDEAO ak nangam ak loi code portant code de transparence mais ñoom de devoir de réserve loolu de devoir de réserve ay secret d'état ak yu demee noonu nga koy fësal waaye doxalin wu ñaaw nga ko loolu du ak de réserve ci loolu lañ pour Ousmane Sonko loolu tax Sonko décret c'est un décret illégal qui viole la loi et les conventions de lutte contre la corruption c'est la vérité duma spécialiste finance publique waaye ñi spécialiste finance publique ñi xam nañ lancer un défi loi bi c'est une un loi qui viole la du moins décret bi bi nga xamné révoqué na Ousmane Sonko c'est un décret qui viole la loi et les conventions des Nations Unies protocole de l'UO e de l'UEMOA de la CDO e etc. lu amul benn wérante parce que Ousmane Sonko dafa nekkoon rek ci li tubaab naan il était dans son rôle. waaw lamu war la nekkoon leral askan wi leral askan rek tax ñu dàq parce que ñom da bari lu ñuy neub bref nous dàq ko waaye yàlla 2017 2016 euh, lañ ko 2017 mu dem dem élection député yi jox ko député booba 37 40 000 voix sax mu député assemblée nationale gis ngeen liggéey ba fa bu rafet la tax ñu ko informer citoyen sunu fan lay jaar loolu lañ ko loolu continuer fu mu gis doxalin wu ñaaw mu wax ko fu mu gis doxalin wu ñaaw mu wax ñu ne boole ca yemul ca député ga rek élection 2019 mu am presque 16 pour cent 600 à 700 mille voix fu mu génn nit ñi topp ko nit ñi nañ ci fu mu génn nit ñi topp ko ñu ne ah kii kat buñ ko bàyyee ayam billaay walaay taal noonu la demee buñ ko bàyyee ayam ñu sos mbirum ndaw su may bañ a tudd di ay fen di ay sos di ay nar billahi wallahi taala sos parce que bañ ko ko jiñee loola bu ñu la ko ñëwee day am fu mu jaar ndaw sa dee dem ci docteur pour dëggal li mu wax ne man kat kii sàkku na ma sàkku boo xam ne bii du at nu mu tuddatiwu ma ci waaw ba tëdd man su loo xam ni neexu ma te ba pare ba mu koy def day fa yor yi la war weer ne ma tëddal wala ma rey la benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon xam ngeen loolu yéenul maanaam bref ba ñu demee docteur bi

docteur bi ci li ñu tuddee affaire viol fale yëpp wallahi bu nekkoon ci réew moo xam ne justice moom boppam ca foofeela yem waaye yëmu fa ñu jàllale ko ñaari at Ousmane Sonko lu ñu ko yëkkut amut ñaari at Ousmane Sonko lu ñu ko yëkkut amut ñu dem atte ndaw sa ñëw wax wax wax ba mu jeex benn firnde tegu ko ci loxo yoon ña koy atte xam ni lii kat su ko ca tëj ci ci viol ak menace de mort waaye nag comme mënuñu koo bay ñu sàkk sos beneen kii bu ñu teg ci boppam moom mooy corruption de la jeunesse corruption de la jeunesse daal di koy tëj ñaari at ñaari at ci kaso ñu bari ci jàngkat yi juriste yi ñi jàng droit am xam-xam nee nañ corruption de la jeunesse boobu ay caaxaan dong la waaye kii liñ ko toppee mooy viol da koo forcé tudd ak moom teg la war ci jëb yi ne ko booy bañ mala la ma la koy def defaat ko ko defaat ko ba ca ñeent wala juróom yoon lii def ngeen yenoon maana donc loola te lañ ko duggee woon mooy buñ ko waxee ñu ne ah léegi te Ousmane Sonko moom ka ndekati nii la mel ñu bari bàyyi ko au contraire keroog la ko nit ñu gën a bëgg donc ñaari at du ñu yëkkul Ousmane Sonko lañ koo fàtte moo tax ñu naan Ousmane Sonko homme de violence Ousmane Sonko liñ ko yàq ci diggante boobu te Ousmane ko daa moom njaboot daa ami waajur daa mi xarit daa mi bokk lu ñu ko yëkkul dañ koo fàtte donc tëj ko ñaari at ci conditions yooyu ma leen wax waaye buñ koy tëj dañ ko tëj par contumace tëj par contumace mooy nga def jëya daw kenn gisu la ñu àtte la tëj la par contumace yoon dafa wax ni comme da ngaa daw bañ lay àtte gisuñu la boo la yoon jisee teg la loxo rek. atte ba nasax na dañ lay waat dañ lay attewaat exactement noonu la demee fii d'ailleurs kenn mënutoon wax sax contumace parce que bi ñu koy tëj xam nañ fu Ousmane Sonko nekk kooku nañ ko jëli tëj comme affaire criminelle la ñu war ko atte ñëwut nañu boobu gendarmerie GIGN yooyu ñuy fab di di di di ko di ko numtati ñu yebal ko jëli ko indi xam nañ fu mu ne waaye ñu atte ko par contumace alors bu ñu laatee par contumace jàpp bu la jàpput walla nga yow nga dem jox sa bopp yoon ba juróomi waaw ba juróomi at fu ñu la jàppee walla nga joxe sa bopp atte booba tas na gis ngeen Ousmane Sonko ni ñu ko jàppe jàpp ko ñu ne waaw eh, procureur ne déedéet jàppewuñ ko loolu leneen lañ ko jàppe donc contimence bi mi ngi wéy mi ngi mel ne nit rey nit daw wala nga sàcc jur xaalis bu baree baree bari ku mel ni tey nu mu kooku sàcc huit cent soixante millions kër far Farba Ngom bu dawoon ak xaalis ba ñu jugé ko par contimence benn bis ay gendarme dox ba séen ko ci fen fenn muy def leneen jeneen jéye ñu jàpp ko ci jéye jooja bu boobaa ndax dañ naan déedéet lii taxut lu njëkk la taxut lii moo tax ñu ay kasaw kasaw la boroom xam-xam yépp euh, rawatina ku mel ni Ndiak Fall di spécialiste en droit pénal ak ñu mel ni moom boroom xam-xam yu wér nee nañu contumace bi nasaxal na comme jàpp nañ ko moom mu mu bind contesté d'accord ma ci jàpp bi yóbbu ko greffier ba greffier jox ko accusé de réception foofa. la yemale contumace ba dañ ko war a attewaat yépp yëpp d'accord nañ ci gisu leen benn juriste boo xam ne mi ngi ci Benno Bokk Yaakaar bind ne contumace bi continue amut ñemewuñ ko sax donc bref parce que Ousmane Sonko la il faut ñu éliminer ko Ismaïla major Fall déclaré publiquement ne c'est terminé la la peine est définitive kon dimanche jeex jeex na la xawla wala xawata ay moroomam tekku ci yoon Ismaïla Madior formal de l'Italie te loolu mu wax ñëpp d'accord dañ ni dafa violer loi loi bi c'est pas conforme à la loi ñëpp ci d'accord article ba wax ne buñ lee ko jàppee rek mu contesté jàpp ga contumace ba fa la dañ ko war a juger waat mu leer nañ mu taxaw ne et Ismaël Madior Fall. Bref, il viole la loi, mon moyen, mon Bon, la peine est définitive, la condamnation est définitive. mon moyen du code pénal du procédure de code pénal mon moyen donc si l'on ne comme li il ne notifié nañ ko jox nañ ko ko té it lu ci nit ñu dem ne dañ koy dindi ca fichier électoral ba dañ koy dindi dindi nañ ko ci fichier ñooñu sax boroom xam-xam yi nee nañ nañ ko ci dindi du yoon waaye ñoom lii seen li nga xam ne moom la ñu moom ñu mooy seen nu mu tuddati mooy Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection présidentielle yi foofu lañ toll jaar nañ ci radiation bi jaar fi fu ñu jaar yàlla wan leen boppam waaye ñu të. pour ñom Ousmane Sonko du bokk ci élection présidentielle il faut il faut l'éliminer fofu lañ tollu waaw wallahi Ousmane Sonko ku ko atte woon ku ko atte woon ci yoonu suñu borom li ma bëgg wax mooy ci yoonu dëgg ñu atté ko ci ku ko atte ci yoonu dëgg yalla xam na ko ne buñ ko atté won ci yoonu dëgg tey Ousmane Sonko mi ngi ko fekk muy wër Sénégal mu ngi fekk muy wër Sénégal mbooloo sax topp ko amul benn sikki sàkk bu ñu ko atte woon ci yoon maanaam bu yoon amoon sax atte bi du ñu àgg ci atte ba dama ne bu yoon amoon du ñu àgg ci atte ba ma ngay yem ca certificat médical ba waaye comme attañ ko bu bu ku ko atte ci yoon da koy daal di bay nëgë da koy fekk mu nekk di wër Sénégal di saafonteeg ay militant mbooloo adduna àdduna topp ko donc loolu te li ñu ko jiiñ sax am na lu ma ci fàtte maa ngi ko jéggul am na lu ma ci fàtte mooy comme dañ ko bëgg a yana yana yenn ba du rëcc fenn ñu ne 2021 ba nëgg ni mi ngi def appel à l'insurrection nangam moom ñu ala teg ko terroriste ak islamiste fala euh, lu njëkk a wax euh, am na luñ ko njëkk a wooye bref li islamiste terroriste Ousmane Sonko ak ñi màndal ay terroriste lañu yoo xam ne non seulement terroriste la mais dañoo ànd ak ay saay-saay yu jóge bitim réew saay-saay yoo xam ne ñun xamuñu dañoo ñuul xamuñu dañoo weex xamuñu jinne lañu xamuñu nit lañu force occulte yooyu Macky Sall di wax mook Ismaïla Madior Fall ak ministre de l'intérieur nee nañu Ismaïla Madior euh, Ousmane Sonko ñi mu àndal ay terroriste lañu dañoo ànd ak ñoo ñee may wax taal sunu réew mi walla yàlla xam na ko. mais terroriste euh, ndax nit ñi xam nañ terroriste ji ngeen terroriste yàlla nañu ci yàlla musal yàlla na yem ci ñoom am na réew yoo xam ne am nañ lu luy mu de euh, boo demee tey jii fu mel ni dëkk bu ñu naan Mosul te mu nekk ca Irak di dëkku arab te dëkk boobu ni mel ak nam meloon ak ni mel te ndax terrorisme boo demee Syrie Syrie nekk ci wetu Liban am na dëkkam yoo xam ni nañu mel tey mara d'Italie ñooñu xam nañ luy terrorisme boo demee Somalie gii ki dem rek ab terroriste dafa jël oto duy koy bomb ba mu fees dem fa nit ña gën a bare mu taal oto ba oto ba tàkk mara d'Italie la la ca dee mara d'Italie ñooñu xam nañ lu terrorisme Mali gii ci sunu wet Burkina gii ci sunu wet ak Niger ak Nigéria xam nañ luy terrorisme bari ki démb rek ay Maliens dañoo jël bateau parce que ñemeetuñoo jaar ci yoonu suuf yi ndax terroristes yi jaar ci fleuve bu ñu naan fleuve bu Niger di dem terroristes yi ndekete ñu ngi leen di xat ci bateau sànni ci xaw ma luñ bomb dañ bateau ba tàkk la ca dee kenn xamul lu mu doon ay fukki fukk ñu ne am ëpp na lu ëpp na téeméer ëpp na téeméer. pour jox leen i tegtal rek loolu mooy terrorisme bu Ousmane Sonko nekkee terroriste mën naa xëy mu ne Fallou demal ca màggalu Tuubaa gi nga duy sa bopp ba mu ba mu fees ak bomb boo demee fu nit ñi gën a nga taal sa bopp wala mu ne euh, basiru jomay fay demal on def noonu loolu mooy terrorisme Ousmane Sonko donc fii mu jaar fépp daa ànd ak terroriste ay saay-saay yoo xam kenn xamul lu ñu doon. est ce que dañoo ñuul est dañoo ay jinne lañu est ce que nit lañu kenn du leen wan ne kuy force occulte nee na ñoom laandal pour ëllëg mu taal réew mi waaye Ousmane sonk mii dana taal Sénégal loolu yenoon maanaa voilà foofu lañ toll loolu dama ne woon dama ko ci dama ne woon dama ko ci dama ne dama ko ci yokk ah Ousmane Sonko moomu ma wax moom lañu ñu jëndee Macky Sall ak Ba moom lañu ñu bàyyi ci lii mu ne akum jubam akuk maandoom akuk doyloom akuk fonk diineem akuk bëgg réewam ñu bàyyi ko ca kaso ba mu nekk fa ci condition yi ngeen yi ngeen xam ñu taxaw di jooyal di jooyal Amadou Ba ak euh, ki ci des nu mu tudd Macky Sall ak di dogu ne nu mu tuddati Amadou day nekk président de la République man de ñoo ma tax wax ñii toog di jooy ci kanam Amadou Ba ak Macky Sall laa xawla wala xawata ñooñu xanaa xamuñu li Macky sal def ci réew mi ñii jooy ci kanamu Macky Sall ak di ko dogul ne mooy nekk président de la ñoom ñoo yàlla xanaa xamuñu li Macky Sall def fukki at ak ñaar yi fukki at ak ñaar li Macky def ba muy dugg rek li ñuy def patrimoine bala ngaa dugg boo nekkee candidat da ngay dem conseil constitutionnel nga déclarer parce que patrimoine la nga am ba mu ko déclaré dañ ne am na huit milliards ma ni loolu mënta ne ñu wax mu ni déet Ablaye Wade dama ko may Ablaye Wade ne ko du dëgg waxoo dëgg da ngay nangam mayuma la ko huit milliards ci koo xam ne ki yaa ngi soog a dugg yaa ngi nekk ci réew moo xam ne mi ngi bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol gën a bari bor ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol gën a bari bor ci la Sénégal bokk Macky Sall di candidat dugg am huit milliards dama koy méngaleeg Jacques Chirac nga xam ni def na juróom fukki ak juróom ci xolub ngu pouvoir fee ca France France booba jamonoy mi ngi bokk ci ñeent walla juróomi réew yi gën a développé juróom ñeent wala juróomi réew yi gën a développé Jacques Chirac def juróom fukki ak juróom ci nguur gi nekk chargé de mission nekk secrétaire d'État nekk ministre ña ay yoon nek premier ministre nek maire de Paris comme 15 wala 17 ans nek président 12 ans muy juroom fukki at ak juroom bañu sété lam am bu muy génn patrimoine bañu sété ñu seetee la am parce que ñun seen patrimoine dang koy dal def sid ñëpp xam ko bañu lam am ci euro boko ko ci français fa matul matul juróomi milliards 5 milliards matu ko juróom fukki at ak juroom ci nguur réew moo xam ne ci ñeent wala juróomi réew yi gën a développé la bokk limaar du ma fent de kii dugg am huit milliards te réew mi mu nekk bokk ci réew yi gën a ndóol gën a bari bor waaw ànd ak Amadou Ba mii ñépp ne milliardaire la te kenn mënu ko weddi man def naa ñetti vidéo yoo xam ni ci moom laa ko def waaw di wane ne lu yenu maanaa la man waxuma ne la milliard mais ñu bari ne nañ milliardaire la dara mënu ko dindi Macky Sall ak Amadou Ba ñu jooy ci seen kanam di di leen dogul na ñooy nekk président ëllëg Ousmane Sonko ñu fàtte ko fee loolu mooy Sénégal waaye li may wax waa Pastef ak seeni sympathisant ak sénégalais yu jub yépp bëgg dëgg bëggal Sénégal jàmm li ma leen di wax mooy lii Ousmane Sonko dund metti na metti na ci njabootam metti na ci ñu ko bëgg ñëpp waaye nag nañ ñépp taxaw lii ñii di digle nañu wooteel Amadou Ba walla dara bu mu leen tiital bu mu leen jaaxal ndigal loo xam ne dafa jëm ci politique waxuma ndigal ci lislaam ndigal lu jëm politik dee na Sénégal ma ni nañu joxe ndigal bu leen neex nañu jooj ci kanam mag Sall bu leen neex nañu dogal ne mooy nekk président de nañu woo seeni taalibe nañ ko wotel loolu lépp man jàpp naan du jëriñ dara parce que ndigal jëm ci mbiri politique dee na Sénégal li ko wane mooy Ablaye Wade muy ñëw waxoon naa ko naa ko waxaat boo liñ naan chef religieux sunu sëriñ si bu buñ doon ñam ña ca bokk laa wax buñ doon cent quatre vingt dix neuf yëpp waaw dañoo dañoo woote ne nañu woteel Abdou Diouf waaye gis ngeen la ca xew 19 mars 2000 wat Wade aussi gis ngeen ni mu xamee woon sëriñ si waaye ba mu demee deuxième tour moom moo Macky sal gis ngeen wër na lu ne def na ko 25 mars 2012 gis ngeen la donc ndigal politik amatul benn deena senegal na ngeen takku gën a góorlu li ngeen nekk na ngeen takku gën a góorlu metti na nag. waaye mën nañoo àgg jamono boo xam jamono boo xam métti bu amoon dana dañ dama ni li daal Ousmane ko métti na métti na ci ñu baree bari métti na ci réew mi lépp Sénégalais yi métti na ci ñoom waaye man jàpp naa ni nan takku rek xale yeeg mag ñeeg yépp nan takku rek nan takku rek nekk ci lu nekk bu retiré carte jotee nan ñëpp jël seen carte bisu wote ba fajar nu dem wote wallaahi buñ ko defee. sunu naqar wépp dana dañ bu boobaal dana nu fayu dama ni le vingt cinq février deux mille nan fayul Ousmane sonk dama ni le vingt cinq février deux mille vingt quatre yéen Pastef ak sympathisant ak képp Sénégal bu bëgg lu baax deux mille vingt quatre vingt cinq février nanu ma lii lii nga xam ni teg nañ ko ko bu su nan ko fayul. te nañ ko mën a fayul noonu rek la te benn sikki sàkka bu nekkee candidat premier tour day gagné même bu demee yàlla def nekkul candidat nekkul candidat gën na jafe parce que ki Sall dee ko ko gënal def koo bañ man ji suma fu mu koy bàyyee na loi yépp nañ ko violé yàlla rek a xam même bu fekkente ni bàyyiwuñ ko. Ousmane Sonko lank nañ téye ko kaso ci condition ñu ko téye même bu dee loolu bu Ousmane Sonko ak Pastef ñu jël candidat boo xam ne bii consensuel ñëpp dañ caa d' accord lañu ña doon woteel Ousmane Sonko ñëpp dañ koy woteel loolu rek lañ war a def nag bu leen déglu kenn ku naan nanga c' est pas votre problème jàpp leen ci li ngeen jàpp ba le 25 février. 2024 nu fayul Ousmane Sonko te loolu lu mën a am la maa ngi leen di gërëm di leen